asalaamaaleykum mbokk yi sant leen gërëm leen ci àndandoo beeg télévision Futurs Médias benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokkoon na ci mbir mu tiis muy génnub àdduna El Hadj du Issa Niass moom nekkoon responsable ci parti socialiste jiite woon commune bu yi mi ngi làkkoon juróom ñetti fukki at ak juróom ñu ne nag dinañ ko jébbal sunu boroom tey ji ci ngoon soxna si ñu fekk mu faatu fële ca Technopole mi ngi doon wuyoo ci turu Ajara Camara ab coiffeuse juróom benn autopsie bi nag lañ ca wax mooy daanaka dafa lap moo tax mu faatu njabootam ne dafa amoon ay jafe-jafe ci wàllu ma xel ba yenn saay sax da doon waral muy daw di bàyyeekoo ci kër gi beneen ponk ci xibaar yi jëmmal nañ ko démb ba léegi muy chimiothérapie ci soxna yi am cancer daanaka dootuñu fayati lu ci mel ni cancer bi jàpp wenn wala bi jàpp buntu njuru buntu kon butitu njurukaay yeneen cancer gynécologique yi nag ñu ne téeméer boo jël daanaka di état bu Sénégal moom moo koy jël en charge démb amoon na benn ndaje bu yaa bu ñu jagleel yu màggal gu mag gi ca diwaanu Touba jëwriñ bi ñu dénk wàllu kaaraange biir réew mi di dalal xel yi moom Aly Ngouille Ndiaye ne wàllum kaaraange dina nekk leen yitteel loolu dinañ gën a dolli takk der yi lu toll daanaka ci juróomi junni wàllum ndox ak assainissement nee na tam nekk na jafe-jafe boo xam ne it dinañ ko saafara laata fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safara bi ñu nekk mbokk yi loolee tënk la nes tuuti ñu yaatal El Hadj Doudou Issa Niass moom moo dëddu àdduna moom nekkoon maire bu commune bu Biscuiterie nekkoon responsable parti socialiste daanaka commune boobu sax jiite na ko atum 1996 ba 2001 mu jiite waat ko 2009 ba fii ñu toll nii ba ba ko suñu boroom moomee ci ak ñun ci ligne bi Abdoulaye Wilane moom mi yore kàddu parti socialiste maa ngi lay nuyu monsieur Wilane Abdoulaye Wilane Euh, du ñàkk kon ci kanam tuuti dinañ ànd ak moom mi yore kàddu parti socialiste ay seede yu mu indi ci El Hadj Doudou Issa Niass nekkoon maire bu Biscuiterie kon faatu tey jile ci suba ñu ne dinañ ko jëbbal sunu borom ci ngoon lay euh, doon ci kanam tuuti kon incha allah euh, dinañ ci ànd ak ay seede ñu wëy ba léegi ci xibaar yi wax ci Ajara Camara Ajara Camara di soxna soosule ñu fekk mu faatu ca Technopole moom nag ñu ne ab coiffeuse la woon tolloon ci fan fanweeri at ak juróom-benn ginnaaw ba ñu defee autopsie bi dañoo jàpp ni moom dafa lap moo waral euh, faatu gi euh, moom dafa amoon nit ay jafe-jafe ci wàllum xel loolu la waa këram wax ba tax na yenn saay sax euh, dadoon daw bàyyeekoo seen kër génn dem tey jële ci suba Ibou ju ab pa ak Pape mbay doxantu nañu ca hôpital Le fa ñu fekk njaboot gi ñu waxtaan ak ñoom reportage. soxna si ci nataal bi mooy Adja Camara mu ngi dëkkoon xaar yàlla ci Ndakaaru ay waajuram duñu gaaw a fàtte fi nga xamante ne mooy technopole ndaxte foofe lañ ko fekk ci biir ndox mi mu ñàkk bakkanam waaye yàlla dogal na nag gannaaw tabaski bi dafa feebaroon feebaru xel xel mi xawoon na jaxasoo bañ nekkoon ci di ko faj ak loolu daan ko garder di ko téye ba ci démb nag bi yaay ji di sangu mag ju jigéen ji mag ju góor ji xëy liggéeyi ci la génn daan na génn nag ñëw xaar yàlla kër baayam wala mu dem ay kër xaritam mais day delsi miñ toogee bu gisuñ ko ci lañ ko doon wër di ko wër di ko wër di ko wër ba démb ñu dégg ne am na jigéen bu ñu for ci dex gi nekk seen gannaaw kër parce que golf la yaayam dëkk bi ñu ko déggee ñu dem def déclaration police yóbbu photo ñu ne exactement kii la waaye yóbbu nañ ko morgu daan teg njabootam bii gannaaw naqar bi ñu àndal di ñaawlu kàddu yi ñu dégg ci xibaar yi ñu ne nag du benn yoon lañu faat Adja waaye ci biir ndox mi lañ ko fekk agression yu amul xel mu jaxasoo moomu moo ko yóbbu ci lii waaw xel dafa lawaaw dafa dugg ci biir dex gi lab mais du agression mais bi ñu demee police ñu jox ñu kayit yi ñu war a jox yëpp bi ñu ñëwee waxtaan ak masoor bi gis ko wan na ma ko ma gis ko gis koor beeg yëpp suñu rakk la mais amul benn problème. soxna si cosaanoo Kaolack ñu ne ko mokkaloon métier la moom mi ngi doon yëngu ci mbiru coiffeuse. xale bu amoon diine la jaamu yàlla waxtu julli da koy xaar day jaamu yàlla. jàng métier ba mën salon ubbi salon biir kër yaayam fa la doon liggéey fa la defoon salon mais biñ dëgmalee tabaski nag moom dafa ubbi woon salon boppam feneen bi Cambérène bi mu ko ubbee matul weer rek ci la ko xel mi dikkal jaxasoo ba mu tëj place bi delloo caabi ji Adja kamara wéetal na njabootam ñi mu bokkal deret waaye tamit kiliyaan ñi fa daan ñëw ci salon ba nekk centre commercial bu Cambérène doon profité rek ci li nga xamante ne da ko doon def mu rafet muy wàllu coiffure jërëjëf yi bu Diouf leneen du tiis fële ca diwaanu Touba Mbacké muy ñaari xale yu góor mag ak rakk yi ñu faatoon ca yoonu Daaru Rahman ñoom nag jëbbal nañ leen sunu borom sànq ca sëgu nekk ca sëg yi nekk foofee ca ya ca Touba waaye jàppale ni waajuram seeni waajur bu góor bokk ca ndax bu ngeen di fàttaliku moom mu nga hôpital jamono ji waaye naqar ak tiis moom moo fa ëppoon tey jile bu ñu sukkandikoo ci euh, correspondante bu RFM rajo Futur Média foofu foofule ñaari xale yooyu àjjuma ji weesu lañ leen fekk kon ñu faatu uh, seen biir nekk niñ leen ko doon waxee sànq uh, El Hadj Doudou Issa Niass dafa dëddu àdduna tey nekkoon maire bu commune bu Biscuiterie uh, moom mu ngi làqoon ñu ne juróom ñetti fukki at ak juróom ak ñun ci ligne bi Abdoulaye Wilane yore kàddu parti socialiste Abdoulaye Wilane ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakato. Ah, waaleykum salaam ah, lan mooy say kàddu yu njëkk ginnaaw Fatou El Hadj Doudou nekkoon ah, seenum naataango ci biir parti socialiste nekkoon ku ñu ràññee lool. li njëkk mooy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun El Hadj Doudou Issa nekkoon maire Biscuiterie El Hadj Doudou depuis mu nekk MJPS. ba tey muy génn àdduna moo nekkoon euh, responsable parti ci département Dakar euh, bokk ci mag yi parti bi nga xam ne nii euh, dëgg dëgg yàlla génn am tiis nañu metti nañu waaye ku sant bañ sañ a nangu te dañuy ñaan yàlla mu may ñu xolu muñ xolu nangu di ko sargal di ñaan yàlla mu ah, jékkal ko yërëm ko dëgg la am na ay at yu mu tëdd gannaaw boo xamee ne feebar euh, a dal na ko euh, mi ngi mujj nekk député à l'Assemblée nationale nekk député parlement CEDEAO bi nga xam ne man maa ko fa wutu man mi maa ko fa remplacé mais Doudou Issa Niass nekk na nit koo xam ne nii ci jamono yi ñoom Kader Sabara ban tey li ko nit ñi xamee mooy xeex pour doomu aadama bi améliorer nekkam pour justice pour développement avant muy dugg ci politique nag nekkoon na syndicaliste ci secteur des banques et finances kon ñu ngi koy jaale bépp syndicaliste bu nekk Sénégal di ko jaale population Cap-Vert waaye peuple Sénégal ak waa parti socialiste parce que fii ma dëkk ci Kaffrine nekk fi maire moom Doudou Sagnès am na lenn ci njabootam fii na ñuy soqe ko waaye noonu lañ koy jaale également waa Waalo ndax xam ñu ne am na fa ak cosaan ak ay bokk euh, euh, euh, bànqaas bu rëy moo ci ci ci garab kii di parti te xam nga ne ren moom at na moo xam ne nii dëgg dëgg yàlla duñ ko gaaw a fàtte ndax at mii ci la ñàkk suñu njiit Ousmane Tanor Dieng matugul ñaari weer ñu ñàkk du Doudou Sagnès yal na leen yàlla at ci njëkkal ak yërmande. jërëjëf. tey ci uh-huh. fukki tey ci 17 hmm. ci ci ci uh-huh. ci lañ koy def levée du corps bi yóbbu ko ci armée lu yaraax yi boobu koy denc incha allahu. Uh-huh. incha allah incha allah incha allah jërëjëf euh, Abdoulaye Wilane yore kàddu bu parti socialiste ñoo ko déggandoo kon El Hadj Doudou Issa Niass ñu ne dinañ ko jébbal sunu borom bu takkusaan jotee ci sëgu jullit ya nekk ca Yaraax moom moo nekkoon maire bu Biscuiterie euh, jiite na ko atum 1996 ba 2001 ginnaaw si atum 2009 ba tey ji mu wuyuje euh, sunu borom ñu woy ba léegi ci xibaar yi démb benn fan ci weeru octobre mooy ndorteelu weer bi ñu jagleel xeex cancer yi jàpp jigéen ñi ni ko ministère de la santé. Kanté waxoon bés yële ci ginnaaw chimiothérapie daanaka jigéen ñi buñ koy defati kon duñu fay lu ci mel ni bi jàpp ween wala bi jàpp buntu butitu jurukaayu jigéen daanaka du ñu fay dara bu dee yeneen cancer gynécologique yi nag daanaka téeméer boo jël euh, juróom benn fukk yi euh, gouvernement bu Sénégal moom moo koy jël euh, ñi feebar tamit amee jàngoro yi cancer garab yi ñoom daanaka duñ ciy fay dara reportage Mouhamed Samb Thierno Laurent Mendy chimiothérapie ci wàllum jigéen ñi fii ci Sénégal jamono ji yemb na mu nekk mbir bu ama am solo boo xamante ni si ñii di way tawat yi ñu ngi koy rafetlu. baax na de baax na de ndax faju bi metti na lool waaw faju bi metti na te bari na xaalis wax dëgg yàlla waaye nag moom sant rek sant yàlla rek. ndax garab yi daa seeroon te nit ñi dañoo sonn fu ne lañ doon dugg si association yi pour ñu jàppale ñu loolu moom lu baax la moom. ah presque 35000 soo ko joxee 15000 la kii la kii 1500 lañ la siy delloo xam ne loolu bëri na nga war si def 8 daa metti chimiothérapie bi nag kenn du ci fay dara ba tax na moom dafay waral lekk ñu daal di amal ay jumtukaay yu am am solo ngir woy tawet yi mun cee jot. ci lu yomb. pour que yëf yi woyof ci malade bi ñun liggéey nañu pour lépp woyof ba nga xamante ni chaque étape dina am ku ko fay taxawu déjà gis ngeen ci hôpital Dalal Jàmm boo see rek am na ku lay accueillir. tey malade bu ñëw tey dinañ la faj donc impact bi mooy déjà qualité de prise en charge bi changé complètement Euh, maladie seen dund dina changé et puis aussi maladie nga xamante ne dañu doon dee parce que amuñu garab loolu aussi day dàq. bu dee di nag ci wàllum nguur gi ñoom dinañ jël ay dogal yu am am solo ngir rek lii di yombaluk chimiothérapie fii ci Sénégal mun fee yàgg. ñun suñu cër moo ñu taxaw pour que mise en œuvre bi bañ a am benn tolof tolof moo tax euh, que tey la démarré bu ñu xëyee dem nañ hôpital Dantec dem hôpital Grand Yoff ñu ngi actuellement nii dalal jàmm. am na yeneen équipe yu nekk feneen pour xool est-ce que dispositif yëpp taxaw na. il ñu koy saytu ñu koy saytu fu ñu toll fexe ba ñi nekk sur place teg ay jumtukaay yoo xamante ne dañu mën a xam mbir mi nan lañ koy maîtriser mais ñun ñu nekk feneen tam ñu ñuy indil information yi pour que bu ñu si gisee loo xamante ne war nañ ko mën a jubanti ñu ñëwaat si ñoom waxtaane ko loolu incha allah danañ ko def. hôpital Le Dantec. hôpital bu Grand Yoff wala sax dalal jàmm bëri na ci ay këru fajukaay yoo xamante ne si ministère de la santé jot na fa dem ngir saytu li nga xamante ne si moo di yombaluk chimiothérapie fii ci Sénégal téeméer boo munti jël ci cancer col de l'utérus moo xam cancer du sein la yooyu yëpp itam nag jamono ji nguurum Sénégal moo koy jël en charge yeneen soxna yu seen i euh, jafe-jafe saafaraw muy ña nekk fële ca diwaanu Bandikat yi ca arrondissement bu Kataba 1 nekk ci région bu Ziguinchor ñoom daanaka lu ci bëri ca benn barak la ñu doon muccee bu ñu demee won lor ba war a wëssin waaye jamono ji nag am nañu benn maternité boo xam ne maire ba di Abdoulaye Balde moom moo ko tabax ànd ak ay partenaire am lañ ca def ci ay koom mi ngi toll ci ñaar fukki millions Abdoulaye Balde lañ ciy déglu ci micro Boubacar Diassi 2015 ànd si benn délégation waroon dem sa Kafountine ñu dévié ma ñëw woon moom seen maternité daanaka lu ce qui faisait office de maternité euh, ay zinc lañ jëloon clôturé ko mu amoon euh, en tout cas sama yaram daw bu baax a baax ma ne leen bu soobee yàlla dina def euh, lu ma mun pour que ma tabaxal leen benn maternité donc depuis 2015 dañu commencé processus bi 2016 ñu commencé tabax yi c'est vrai que jël na ñetti at donc di di jégalu si population yi mais je pense que lu jot yomb donc tey la def na ñu ñëw inauguré maternité bi te lu ñu si dugal si xaalis parce na vingt millions euh, ma def ko si sama bopp mais aussi amay xarit jàppale ma si euh, ba ñu jekkali tabax bi aussi am équipement en partie mais dinañ continuer di def équipement bi parce que euh, premier adjoint maire bu bakki dama la jógee Finlande ñu may nañu ay matériel dinañ c'est vrai matériel boobu yëpp mënu fi xeej mais dinañ fi indi une partie mais aussi suñu mbokk waa Évreux aussi yónnee nañu beneen conteneur boo xam ne mi ngi si pooru Dakar boobu aussi dinañ am ay yoo xam ne dinañ leen ko jëbal pour que ñu mën na équiper maté wàññi maté waa Bakel ñoom hôpital la ñu bëgg ba tax nañu génn ci mbedd bi dem bu def ab dox dox boo xam ne dañ koo def ci jàmm rek ngir laaj hôpital beneen mbirit muy ñu ne ñu tabax tali tali bi nga xamante ni ay yoon yu programme d'urgence de développement communautaire PUDC di jëfandikoo jamono ji ndax dañoo jàpp ni bu demee ba benn at daanaka kenn dootu fa mën a jaarati reportage ca Bakel Moussa Oumar Gueye Amadou Diédhiou ñu defaral leen ay tali yoo xam ni dañ ci def goudron moo leen gënal ay piste latéritique yoo xam ni bu toogee at rek dafay yàqu waaye itam ba tey ñu defaral leen benn hôpital boo xam ni dinañu mën a toppatoo wér-gi-yaramu askan wi yeewoo ci Bakel ak ci dëkk yi ko wër loolu nag nekk ne li nga xam ne itteel na leen lool ci caravane bi ñu doon amal. parce que hôpital laay liggéey maanaam yoon yi ñun Tamba la ñu war a évacuer mais on est obligé léegi di yi day dëkk. léegi ñu ne financement bi génn na dañoo bëgg rek ñu dimbale ñu ñu gën a accélérer affaire yi pour ñun ñu mën a yóbbu maladie suñu mënee am hôpital niveau de moo ñuy gënal parce que nous sommes dans une zone frontalière Bakel dafa nekk ci frontière Mali mi ngi fi Mauritanie mi ngi fi ñoom ñëpp fii la ñuy ñëw donc. place indépendance la woon fii ay mbaam ñoo fi doon nelaw di fi fanaan tey grâce à Ibrahima Baba Sall président Macky Sall tabax nañu place bi ñu tudde ko président Macky Sall. lu ñuy war a dolli tey même hôpital niveau 2 bi parce que su ñu amee hôpital sous régional bi parce que Puma ñëw na ba fii ba def photo yi ba def lépp li des rek tabax yi taxaw dañ koy ñaan na fexe projet boobu gaaw a taxaw. Moussa Diop président dawalkatu Daamaru tukki nekk ci gaaru Thiès bu Bakel nee na sa sañoon ngeen yombalal leen ngir ñuy jot ay permis de conduire ndaxte danañu def ñaari téeméer ak juróom fukki kilomètres dem ba Tamba ngir wuti ko. loolu nag bëgg nañ ñu indil leen ci ay saafara. Mbam euh, fële la nekk ca région bu Fatick euh, ñoom nag li leen jaaxal mooy juróomi at a ngi nii mënuñoo fexe ba am ndox bu baax te loolee dafa am ay njeexital euh, ci seen i yëngu-yëngu seen i yëngu-yëngu ci wàllum koom ca diwaan boobule teg ci benn forage bi nekk foofee ca Mbam moom mooy jox kon lii di commune bu Foundiougne ndox Aminata Goudiaby Faly Gueye ñoo nekk ca diwaanu Fatick. mbam gaa mbug a yar mbam gaa ngodo mel ndox lañu bëgg mbam dafa mar loolu lañ doon yuuxu ci séeréer ci mbedd yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci seen commune boobule jafe-jafe jot ci ndox nag ñoom nee ñu atu 2014 ba léegi lañ koy am gannaaw ba nga xamee ni forage yu caare bi nga xam ne moo leen doon jox ndox dafa pann dañoo mar bu baax sax ndox lañ bëgg première doléance ndox jusqu'à la dernière doléance ndox mënatoo sangu ñaari yoon mbaa ñetti yoon benn yoon rek pour pour sagalal ndox mi parce que ndox mi du pour sangu kase togg yaa ngi fii leneen yaa ngi fii. Mbam nag ab population bu 15000 habitants la ñu tas leen ci juróom-ñetti village ci juróom-ñetti village yooyu nag bu ci nekk ñaari borne fontaine rek moo fa nekk Diegane Thiaré di wax ne ndox mi doyul dara moom itam ni ñuy xamal yeneen jafe-jafe yoo xam ni ñoom ñoo waral ndox ñàkk foofee ca Mbam. forage bi wax naa ko léegi dañ gasoon nañ ko mais ndox mi dafa mën a am xorom mu xorome donc loolu moo indi woon problème bi. boo léegi ñu gas passé mbite yéen buñ ko gasee nag ñu raccordé ko mu ñëw ba fi mais affaire bi doyul donc ñun am nañ forage loolu on loue les efforts. boo jëlee on village comme Mbam ay gaage village yu ngand la ñaari robine vraiment doyul. li mu indi nag mooy jigéen ñi ak itam ndaw ñi dañuy def ay kilomètres di dem ci yeneen dëkk ngir mën a am ndox. du ñu nelaw guddi du ñu nelaw bëccëg njur ñàkkum ndox 5 heures du matin la ñuy jóg boo ñëwee teen bi da nga koy fekk ñu root ba mu jeex ñi ñi 4 heures la ñuy jóg. loolu jaaduwul teen yi doyul. da ngay gis jigéen ñoo xam ne tey ñooy takk charrette dem ci àll bi ba am na loo xam ne fii ndox mi moo ko waral am na suñu benn jeune bu décédé fii te affaire yi ndox moo ko waral parce que ji jigéen dañoo dem rek wuti sàpp affaire bi guddee ak charrette bi waa ji ñëw mbëkk ci charrette bi daanu fale cette place bi fekk ko foofu. ñoom ñi nag marche pacifique la ñu def ngir ne ñu yëglu ba ñi nga xam ni ñoo di autorité yi indi leen saafara ci jafe-jafe bi nga xam ni mi ngi bëgg a yàgg. ginnaaw ba jàngalekat yi demee ci école yi démb ëllëg incha allah la ndongo yi fas yéene dellu ca diwaanu Sédhiou moom dañoo bëgg ubbi tey jàng tey ñu jëmmal ko ba tax na door dañ fa ab liggéey muy ay bésu set setal fexe ba ñax yi nekk ci école yeeg salte yeeg yëpp ñu génne ko foofulee ñi ko sabab wala bokki nga xamante ni moom moo yore ab turam foofee ca Sédhiou li ñu nemmeeku mooy bëri na ay école ñii di football ci ay nawetaal nawetaan yenn saa yi dañ koy jëfandikoo ba tax na ñoom ñëpp wuyu nañu ci bésu set setal yooyu le reportage Bakary Konte Khali Diame professeur bala mu Moussa Daffé moom nag moo daal di initier grande opération set setal maanaam daal di génne ñax yépp ci école yi nekk fii ci commune bu Sédhiou moom nag mu doore ko école boo xamante ne moom lañ ko tuddee muy lycée bala mu Moussa Daffé les population surtout les jeunes surtout de toute obédience. damay ñaax population bi surtout ndaw yi ñoom ñëpp ñu daal di booloo nekk benn ma leen di woo ci ay journée investissement ma leen di woo ci propreté ñi seetal école yi loolu nag pour wane sama engagement def école bi mu nekk école bu set nekk espace bu vert loolu nag bu amee élèves yi ñoo war a continuer daal di seetal seen environnement daal di eh, taxaw def ay reboisement pour mun a am cer boo xamante ne foofu la ñu war a taxaw loolu laa culture boo xamante ne dañuy préserver seen euh, environnement ñi daal di setal seen environnement. et continuer cette culture de préservation de l'environnement et de la propreté de l'hygiène dans leur école. ndaw yi nekk fii commune bu Sédhiou daal wuyu appel boo xamante ne professeur Bala Moussa def na ko Amadou Lay Konté nekk président conseil communal de la jeunesse moom nag miy ñaax ndaw yi. c'est une occasion pour nous de lui rendre hommage en quoi faisant cette journée yi euh, façon pour nous aussi de participer à l'effort de développement mais duñ fi des fii rek mais dañuy sensibiliser ndaw yi que ça soit ndaw yi nekk ci mouvement navétane porte de foulard yi ak yeneen structures yi de jeunesse yi pour que ñu mun a activer dans euh, ci quartier yi ci écoles yi pour ñu mun a désherber euh, nu mu tuddee a public yi ak euh, écoles yi parce que fu mu nekk nii ak concept ubbi tey jàng tey nit ñi dañu ko soxla daal pour def ko daal moo tax tey dañu ñëw nii la pour rendre hommage au professeur Bala Moussa Daffé mais bu ñu fii dañu war a dem ci ñeneen école yi ñu nekk ci ñu kas suñu quartier yi mais ci lieu public yi tamit pour jéem a def ay set setal euh, pour rafetal dëkk bi daal. depuis fukk fan ndaw yi nekk fii ci diwaan bi ñu ngi sur le terrain di génnee ñax yi ci l'école yi nekk fii ci diwaan bi ndaw yi nag bu fekkee def nañ journée désherbage yooyu dañ koy daal di wéyal ak ay journée de reboisement. xale yi bu ñu waree dem école rawatina bu ñuy door nag euh, dañuy soxla ay kayitu juddu ba tax jamono ji bëri na ay waajur yu fees dell ci centre d'état civil yi ca misaal ba nekk fële ci hôpital Aristide Le Dantec am na ñoo xamante ni dem nañ fa waaye nag agent municipaux yi jotuñu leen a jox seen i këyit ndax dañ leen di laaj ñu indi ay livret de famille muy euh, kayit yooyu nga xamante ni ci lañuy bind euh, ñii di kii di yaay ji wala papa ji ak njaboot gi ndax ñu mën a am seen i këyitu juddu ñoom nag dañoo jàpp ni dañoo war a gën a yombalal nit ñi ngir bu ñu bëggee bind seeni doom ñu jàngi mu mën a yomb reportage foofu Aïssatou Gueye Ba ak Abdoulaye Diop. boo xoolee seen bët yi gis ci jaaxle ay waajur yu ñëw ngir ut si kayit pour seen i doom ba tey jotaguñu si état civil bu la daan teg di leen laaj rek ab livret de famille ak i tamit yeneen kayit ñoom ñee di ñu xamal rek ne kayit yooyu mënuñu sey jot. bi mooy ñun suñu ñun ñu fi nekk suñu doom yi fii la ñu juddoo quoi fii lañ leen déclaré ci état civil bi comprendre bon ça fait des années ñu ñëw fi di ut extrait ñu ñuy jox quoi ba ça fait un mois ci ginnaaw ñu ngi ñu ne ñun ñu yor extrait yi baaxul parce que c'est pas signé. puis une semaine ñu ngi wër ko am ndax ñoom ñoo ñuy lii gis nga bii la ñu ko de ñoo ñoo ñu ko délivré tey ñu ñëw pour am extrait de naissance ñu ne duñ ñu ko defal parce que ñun ñoom signé wuñu registre bi ah nañ uti carnet de santé mbaa ñu uti livret de famille mais fuñ koy jëlee suñ carnet de santé depuis vingt ans yu seen jàngum doom yitteel loolu ñi ñaan rek ñu jàppale leen. ñu dimbale ñu ngir laay war a ñu jàppale ñu ci mairie bi toujours bu ñu ñëwee ak problème. man sama doom ñu ngi ne 16 ans 16 ans ko carnet de santé noo ko mën a gisaate. waaw léegi ñun suñu problème mooy léegi ñoom nañu wax loolu mën nekk ñu ñu toppatoo ay extrait comme ça suñu doom yi mën a dem jàngi def seen examen ñun loolu mooy suñu problème. ah léegi nag ñuy lancer président bi appel moom nga xam mooy moom moom mooy moom seen chef. ñaari fan képp des ci ouverture école yi waajur yu bëri di def lu ñu mën ngir seeni doom mën a jàngi comme ni mu ko waree. ci waajtaayu ubbiteeg école boobu lee bëri na ay njaboot yoo xamante ni soxna yi daanaka ñoom ñoo yore kër yi ci misaal fële ca diwaanu Ndar Géej am na soxna suñu dajel foofu le di wuyoo ci turu Aïda konaate moom euh, dafa am ñetti bant te booy xool seen inscription muy euh, fourniture war a yére yi ñuy sol lépp dafa nar a gàlloo ci ndoddam moom dafa yëngatu ci wàllum fëgg jaay waaye nee na taxaw na temm ngir fexe ba ay doomam door école ci anam yi mu gën a baaxee reportage euh, Ousseynou Diop ak Habib ubbitik l'école bi alxames bi lañ koy amal xale yi war a delluwaat ci classe yi waaye bu fekkee ni am na ñoo xamante ni lépp yemb na ñeneen ñoom ñu ngay góorgóorlu ay dëkkonaate ci ñooñu la bokk moom am na ay xalima yàlla yoo xamante ni ñoom ñëpp dañu war dem ci lekkool yi waaye nag nee na mi ngi kër kër yi ngir waajal bi mën a jaar ci yoon ah ñu ngi ci waaj bi nànk nànk rek mais xam nga léegi moom dara matewul daal dañuy góor góor rek di waaj nànk nànk rek pour l'instant yi daal comme dañu ubbi tey jàng tey moo am ci Sénégal dañuy mujj obligé jënd ay ñaari ñetti kaye jox leen saag ñu dem préparer. xale yi dañu war sol ay yére waaye tamit am ay fourniture yoo xamante ni day doy ngir ñu mën a dem jàngi moom nag nee na lépp benn benn la koy defee ndaxte fi dooleem tollu rek fa lay yem. moom kay dara yomb fourniture cher na nga bëggee jënd fourniture jënd saag bëgg habiller sa doom correctement day metti vraiment dafa metti sans compter na inscription yi duñu xaar dëgg yàlla yëpp metti na. waxtu bi nag ñu ci bare ci jur yi doon na waxtu boo xamante ni day metti lool ci ñoom ñu yor ay doom war leen a dugal ñu jàngi war a jënd yëre toftal ci leneen lu ci mel na ay fourniture scolaire ak yu ni mel moom nag nee na naam jafe na waaye dina def kem ci lay kàttanam ngir ay doomam la ñu bëgg mu taxaw ca. Eh, da ngay obligé rek yow parent bi rek wut ñaar rek boo amee ñaar rek yoo leen jox ñu rek commencé si moom ngay noonu rek ngay def moom dangay cof cofee rek parce que amoo benn amoo ñaari xaleel moo tax. jaay fëgg jaay moom neexul sans gain ngay liggéey. waaw dañuy taaba taaba rek. dem na sax ba yëkkati ay kàddu jëmale ko ci ndongo yi mu jàpp ni seen ay wayjur yi dañuy sonn ci ñoom tax mu leen di ñaan ñu gën a góorgóorlu ci wàllu njàng mi. di leen ñaan rek ñu góor te xam ne aussi parents yaa ngi def sacrifice daal pour ñoom ñu góorgóorlu parce que lii ni daje pour ñoom la te seen avenir rek tax ñuy sonn. Aïda Konaté ci quartier Sanke bi nekk ci diwaanu Ndar géej la dëkk moom nag day jaay lu jëm ci wàllu fëgg jaay waaye nag la mu xamle mooy ay doomam ci ubbiteeg lekkool bile lu mu mën dina ko def ngir ñu mën a bég jërëjëf Ousseynou Diop leneen lu ñuy waajal jamono ji muy màggal gu mag yi fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar di yamu ak fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre démb am na benn ndaje bu yaa buñ ci amal fii ci ndakaaru ci teewaayu ministre de l' intérieur ak ki yore kàddu xalif général kullu murid kii di Aly Ngouille Ndiaye di ministre bi moom nag mi ngi dalal xel yi rawatina bu comité d' organisation bi lépp lu ñu digaale ak ñoom dinañ ko def wàllum kaaraange yi dina takk bu baax lu toll daanaka ci juróomi junni ci ay policier dinañ leen yebal foofu foofule wàllum ndox mi ak assainissement bi tamit dinañ ko lijjanti laata loolu Fatima Touré ak Modou Diop ñu nga fa woon. bu am solo mooy wàllu sécurité police gendarmerie sapeurs-pompiers jël nañ disposition pour que màggal gi ñu def ko ci jàmm. ci kàddu yu lee nga xam ni ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye dénk nañu ko ñu munti jàpp ni rek 18 safar édition 2019 ñu daat koy mal ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre lépp li nga xam ni wàllum sécurité la daati na yemb moom mu xamal li ne la lépp li nga xam ne war na dinañ ko def ba màggalu Touba bi doon réussite. police ak gendarmerie ak autoroute ak ak ak ñi gérer autoroute bi pour que ñu mën a xam. en tout cas circulation bi pour éviter problème yi ne amoon daaw nga xam ne mën nga voyager rapidement yàgg yàgg Touba waaye euh, soo yegsee bi Touba am problème bi foo suñu xool affaire péage bi parce que daaw si le tronçon y avait pas de péage donc moo taxoon gaawoon na mais déjà problème yi ñu vivre ci événement yi wane na ne effectivement péage bi des fois dañ ciy perte temps donc il ñu xool loolee waral ay dispositif jëm ci wàllum assainissement jël nañ ko. ci wàllu maintenant assainissement am nañ fanweeri camion ak juróom-benn donc hydrocureur yoo xam ne yi war nañ ko mën a mettre en place si possible à partir de demain pour que ñu mën a liggéey au moins euh, fukki fan. Euh, juróom fukki toilette mobile donc je pense que loolu aussi bu nga ko defee ci wàllu ONAS euh, situation bi dina améliorer wu. li nga xam ni moo jëm ci wàllum ndox mi office. des forages ruraux di xamale ni nag am na ay coppite yu bëri yoo xam ni ñu ngi koy xaaran ji am nañ yaakaar aussi que disposition yi nga xam ni peut-être euh, OFOR wax na ko suñu ko mettre en œuvre dana am amélioration par raport ak li amoon daaw mooy maanaam réunion nationale bu grand màggal de Touba ñu amal ko ci teewaayu porte-parole xalif général des Mourides Serigne Bass Abdou Khadre moom mi nag di sakku lépp lu nga xam ni rek engagement la ñu daal di koy jël ci réunion bi ñu daal di koy jëfee ba nga xam ni rek màggalu Touba bu ren bi dina doon réussite. ñu xuus ci xibaar yi ba léegi ak conseil national de la consommation ñeel la ñuy yëngatoo ci wàllum boulangerie démb nag daje nañu wax li nga xamante ne moom moo tukkee ci liggéey bi ñu dooroon ngir indi saafara ci jafe-jafe yi am ci secteur bi lañ ca mën a jàpp rek mooy léegi texte yi dinañ ko doxal maanaam dañuy doxal yoon ci wàllum boulangerie kii di Aminata Assome Diatta ministre du commerce moom nag mi ngi ñaax defarkatu farine yi ñu xoolaat bu baax a baax qualité farine boobule ñuy joxe waaye ndaje boobule ci loolu dañ ciy déglu Amadou Gueye prés Amadou président fédération boulanger yi Sénégal ak Aminata Assome Diatta di ministre du commerce. may dalal seen xel ndax boo déggee kàddu yi fi jub yépp proposition yi ñu def kenn waxul ni d'accord ci ndax proposé nañu réglementation. proposé nañu accompagnement technique proposé nañu accompagnement financier bi nga xamante ne état bi mettre na ko à la disposition du secteur. boulangerie jafe-jafe yi dafa bëri chaque année ñu ngi coow ñu jàpp ne loolu mënul wéy ñu sàmbaraat ko xam ni jafe-jafe yëpp si anarche bi la maanaam lu waaye def lu ko neex jaaye mburu nu la neexee def loolu neexee. kon lu ñu mën a retenir tey fii mooy. sunu bëgg-bëgg changement boobu ministre commerce bi nee na dëggal na ko maanaam bu ñu xasee bind Sénégal dañu bëgg bind texte mais bu ñu ko xasee bind bi paa ñoom jàpp nañ ni danañ ko dëgëral danañ ko appliquer maanaam si biir arrêté yeeg décret yi dafa am disposition yu am solo maanaam dañ ni nit waratu ñëw rek ubbi boulangerie te jaaru si yoon même boulanger yi nga xam ni taxaw nañ ba pare dañ la war a la ñuy wax déclaration pour ñu xam kan mooy kan. parce que am na ñoo xam ni peut-être teguñu si yoon ñu ni léegi jàpp nañ ni euh, ñun boulanger yi dañu nekk en otage maanaam mun nañu wax ni distributeurs yi dañu leen dañ leen tënk ba nga xam ni am ñu xam dañuy wànce sa seen mburu ñu loolu pour mu deñ dañuy def lu ñuy wax formalisation ginnaaw ndaje boobu boobule sax ci la ñu xamale ni eh, dinañ dugal léegi ci marché bi benn eh, baguette mburu boo xamante ni ñeent fukki dërëm eh, lay jar nekkul kon yokkute ci njëgu mburu gi waaye dañuy indi beneen mburu boo xamante ni au lieu de fanweer ñeent fukki dërëm lay jar lii di UNAPAD di Union nationale pour la promotion de l'agriculture durable muy màllum mbay mi ñoom nag seetlu gi ñu gis mooy ñi ci yëngatu lu ci bëree bëri daanaka duñu booloo ci ay mbootaay duñu amit xarañte gi war teg ci yenn saay seen i jafe-jafe sax duñ ko mën a lijjanti ba tax na mbootaay boobule nee na dina ci indi ay saafara dem ci ñi di euh, béykat yi di leen tàggat ci yenn anam la ñu war a béyee ngir euh, gën a mën a ñoŋal seenub liggéey Ibrahima Diame ak Fally Gueye ñoo teewoon seen ndaje boobee ca diwaanu Kaolack NAPAT ñëw yokk ci organisation yu bëri yi nga xamante ni ñu ngi yëngatu ci wàllu mbéy Sadibou Cissé di coordinateur national bi xamal ñu ne dëgg la organisation yi bëri nañ waaye li ñu seetlu moo di que ne implication ñi nga xam ni ñoom ñooy yëngatu ci base bi maanaam béykat yi dafa desandi. dañoo ñëw pour wane beneen doxalin. gannaaw bu ñu nangoo seen doxalin ñoom ñun dañuy am beneen doxalin bu ñuy dox doxalin bi mooy impliqué nit ñi ci suuf ca village ba ca quartier ba mu xam ne moom secteur métier bu muy liggéey boole nañ ko ci organiser nañ ko pour nga xamante ni doxalin woowu mooy pour mën a euh, impliqué euh, baykat bi ak sàmmkat bi. ginnaaw implication bi fas yéene nañ ko dafay jéego ci wàllu formation El Hadj Wak Ba di koordinateur régional bi ne béykat yu bëri nag ñoo ngi yëngu ci wàllu mbéy waaye technique yu bëri xamuñu ko. dal parce que lu si bëri boo gisee mu leen dal parce que maîtriser wuñ technique yi boo xoolee fii ne service de l'État yi nga xam ne ñoo encadré donc liggéeyatuñ pratiquement parce que dematuñ ci paysans yi. mbootaay bile ne fas yéene itam dugal loxoom ci wàllu campagne de commercialisation bi maanaam njaayum gerte bi samp ay coopérative pare nag pour xeex opérateur yi nga xam ne dañuy dund ci kaw béykat yi. ginnaaw mbay mi ñu wax ci càmm gi nag xam ngeen ni càccum njur gi dafa tar loolu ci ay diwaan yu bëri fii ci Sénégal ba tax na nag dañoo bëgg teg ay comité de vigilance teg nañ ci sax lu toll ci juróom fukk fële ca li ko waral mooy ñuy fexe bay caytu euh, loolee di euh, jur gi ñu ànd ceeg projet d'appui au pastoralisme euh, fexe ba loole ñu faagaagal ko ca diwaan yooyu lay teg ci dinañ ko yaatal ci yeneen commune Omar Ndiaye ca diwaanu Koungheul ngir jur gi ñoom mbootaayu association nationale de lutte contre le vol taxawal lu ëpp juróom fukk comité yoo xam ne ci gox-goxaan yi di lañ ba def ko ti ñaawteef yooyu li nga xam ne moom lañ ma jox gum recensement ci bi ëpp na fukki junne yi tat yoo xam ne région Kaffrine kese ñoom lañ ko jëlal mais loolu foog ñu wax ci déplacement wu jur gi dafa yomb kenn ku ne fu la neex nga déparé fu la neex nga fanaan fu la neex nga yendu loolu ba kañ nañ bala ngaa ñëw ci commune bi nga ñëw fokk nga ñëw présenté wu ne man dama fi bëgg a nekk 3 mois cinq mois wala 4 mois sàcc duñ ay jinne duñ ay malaaka li ñu sàcc naawuñ naawuñ ak moom ci suuf si la ñuy jaar nit ñee koy jënd suñ fexe ba kenn ku nekk dëkk bu ne am comité waa dëkk ba ñoo koy tànn comité yooyu ñu monté woon 2500 la woon avant ñu dem fanay jëri Fanajeeri wax nañ ne 80 villages la. ndax projet régional d' appui au pastoralisme euh, PRAPS fas yéene la gunge dooleel leen ci ay matériel projet PRAPS dafa jóg àndandoo ak euh, association bi PRAPS dina leen jàppale ci lépp loo xamante ne affaire formation la renforcement de capacité su paree ci loolu dina leen jox tamit matériel matériel boo xamante ne ni lu ko mel ni bot lu ci mel ni ay euh, sifflet ak lu ci mel ni ay lampe torche yoo xamante ni haute porte la. ci ay bis bii rek jot nañ fee taxawal lu ëpp juróom benn Koungheul ak département bu Koumpentoum ngir fexe ba fànq pexe yi def ko ti yooyu fexe ba askan bi mën a nelaw ci jàmm. jërëjëf Omar Ndiaye léegi léegi dañuy dalal El Hadj seen Gueye ci li yéenekaay yi xëy tey. nit dafay deewaaleeg ngëm-ngëmam Xalifa Sall ni waxee ñu xëy jàng ko ci observateur moom meeram Ndakaaru ba woon yéene kaay bi ne démb cim ndajeek ndaw yi fare ak moom ca këram lam leen wax mooy su ngeen amee yenn ngëm-ngëm yi genn yaakaar gi gennu jëmu gi ànd bi gën ngeen di am bu kenn nag naan Xalifa Sall yi sama bàyyi waaye jàppee leen mën nit ku ngeen war a daal di wax dëgg su njumte ñëwee bu leen nit ne Xalifa Sall yi suñu leader ba lu ma def rek ngeen ànd ca waxante dëgg mooy li war amul lu ma leen ëppalee suñu ànd dëgg moo ko war a lal gëm leen seen bopp Vox Populi jàllale jenn kàddu yi tukkee ci Xalifa Sall mu naan ay ndawam bu leen waxaale benn yoon seen ngëm-ngëm wala ngeen di ko jaay Les Échos ne Xalifa Sall ma ngay doppee ñooñam yéenekaay bi xamal ñu ci weneen wàll ne moom Xalifa Ababacar Sall démb seeti woon na nag kii di archevêque bu Ndakaaru Monseigneur Benjamin Ndiaye ci yooyu jamono Abdoulaye Wade moom ci waxin di xool nu muy reyee ñoom Oumar Sarr Vox Populi ne ñamu dénk nag rey gi commission de discipline PDS coppite am na ca président ba daaw de ñang la léegi ak fukk ak juróom-ñaari membre yéenekaay bi ni ci weneen wàll moom président Wade dindi na nag Oumar Sarr nekk daa toogal PDS ci biir Front de résistance nationale FRN Baara Gaye ak Doudou Wade la fa yebal a gis ne góor gi dafa réer ndax euh, ci pàttali Front de résistance nationale googee moo fi doon artu jógee ci boobépp front bu dee mu ne Madické Niang day wéy di ca bokk ginnaaw si mu ne gelé na ay activité ndax euh, la demoon wuy ji ci concertation di dialogue national yi président Sall woote woon ca palais ba démb moom yàlla yi soppi gi bataaxal Mamadou Diop Decroix ca waroon ko bind Makhtar Sourang mi coordonnateur front bi moom Abdoulaye Wade gisee waatam ak Macky Sall nag ñii di universitaire républicain yi ci direct info rafetlu nañu ko bu baax yéeni kaay bi wane ci xëtam bu njëkk ministre mbay mi Moussa Baldé bokk ca ñu naan rafetlu nanu ni nga xamante mooy mat mat gi ci président Sall wane waaye mat gi président Abdoulaye Wade doxalee ñu ngay sàkku it ci ñii di aji politique bi ci lépp yu yi soxal réew mi Karim Wade it rafetlu gisewaat gi la tribune ne la mu xamle moom Karim Wade mooy ànd na ci bépp jéego bu ku tedd ki Serigne Mountakha Bassirou Mbacké teg ci jubóo gi nag ak président Wade ak libéré Khalifa Ababacar Sall Ansoumana Danfa mi Vox Populi ne ci allié première heure yu Macky Sall ci la bokk mook waa mouvement pour l'action et la citoyenneté authentique rafetlu nañu ko bu baax ne président Sall askan wi ci boppam la may nopp askan wi ci boppam la déglu donte du neex nag aji politique yeneen yi nga dañoo làq yeneen agenda soxna Mariam Faye Sall jéego ya muy teg la observateur xëy càmbar yéenekaay bi ñu gis ne électron libre la protocole xatalu ko terewu ko dem direct ci askan wi léeg-léeg mu jóg ci lum tàggoo solu sorinu jeegu Sénégal dëgg ak cérémonie bu mu mën a doon loolee ne ay feem jural na sax ay poñ ñu ne borom këram Macky ba ci keroog ca New York bañ ko fa yuuxu yolleekuwul dugg ca perangu maison du Sénégal ñu ne daa taxaw dégg ko yuuxu yi ca moo ne xeer wala leneen mënoon na faa bàyyi ko lii lépp nag waral observateur ne ñu ko ñu ko wax ñi yore karangeem yombul ci ñoom misaal gidi bi ñuy waajal tabaski gi mu génn di shopping ña xàmme ak seeni i soxlaa ki banque te la dem riir songi ko garde corps ba daa mujj woo police ngir indiwaat ak dal borom këram président Sall fa mu bëgg ak dal am ca mooy ci wàllu yorinu suuf gi ci Sénégal laata nag muy wees laata muy doon almet ji taal daay ji ci la soleil moom jiital réew mi di xam le ni alerte maanaam dànkaaf yu ñu koy yónnee téeméer yu ci jël juróom benn fukk yi ci wàllum suuf si la jógee mu ngi ko waxee ci bi muy jiite fanweer ak benneelu congrès notaire yi Afrique yi président ci yéenekaay bu ànd sàkku ci ministre ci réew mi ci yeesal yi Sall ministre Abdou Karim moom yore wàllu environnement lu jëm ci dogum garab yi ci anam yu jéggi dayo équipé na ay agent am naka noonu sàkku ci meeru diwaanu Sénégal yi ñu jàpp ci xeex bi ñu jàng ko ci direct info ñu jeexale làmb ji ak les écomi xëy dalal du Diagne Diécko président amateur yu Sénégal wàllu colum gang yi ci làmb ji mu gis ne lu koy yàq la luy soppar ñi xar kanamu làmb ak cafka gi la andu ca photographe bu ñuy jënd loolu licence sit ngir couvrir événement sport mu ne loolu kenn xamul lu mu amul sens CNG bi Doudou Diagne Diécko ne dafa tardé ci wàllu titre roi des arènes jot na sëkk nag mu nangul Modou Lo titre roi des arènes. jërëjëf El s n Gueye sant ko gërëm ko ak yeneen ñi àndoon nag télévision Futur Média ci xibaaru digg bëccëg yi bu 19h30 jotee incha allah rédaction bi dina fi dellu si waat ci yeneen jotaay yi xibaar di leen ñaanal ngeen yendoog jàmm.